Amis internautes, je suis très ravi de vous retrouver sur ce portail de À la présentation, Souleymane Ba, Hassan Seydji caméra bi, à mes côtés Cheikh Ahmed Tidiane Gomis di journaliste sportif groupe Walfadjri. Cheikh maa ngi lay jaar. maa ngi lay fay di lay euh, ñaanal jàmm. merci Cheikh mais avant tout euh, j'en profite pour vous féliciter ci seen i plateau yu bees gis naa réflexion yi installation ak yooyu franchement nice na euh, Cheikh tey dañu fas yéene waxtaan. ci coupe d'Afrique des nations u mooy jongante bi nga xamante ne ni sénégalais yi ñoo ko daan def ci wàllu tàggat yaram ñi nga xamante ne ni ci vingt ans la ñu toll Cheikh tey boo doon def sa jàngat ci ci compétition bi. Euh, jàngat bi ma ci njëkk am moom mooy euh, maanaam euh, naqar li tax naqar ñëpp xam nañ ko mooy que coupe boo xam ne compétition boo xam ne c'était à la portée. des lions dëgg-dëgg boo xam ne tey jii ku newoon Sénégal du gagné final bi du ko gëm jege woon na lool amul compétition bu gën a jege pour jël coupe bi bu mel nii loolu moom mooy jàngat bi ma am ci euh, compétition bi. su may def benn euh, briefing résumé euh, ci coupe d'Afrique des nations u bi Sénégal dañu daje ak Mali door ko 2-0 daje ak Ghana door ko 2-0 Burkina 5-0 Afrique du Sud. dóor ko benn bal ci dara euh, dem final dajewaat ak Mali 1 ñu dem tiro bi seet mais balaa baag Mali bi nga xam ne moo ñu gagné euh, ci ci ci final gi dañ ko njëkk a dóor 2-0. waaw euh, Mali dafa ñëw xam nga Mali dafa nekk pays wu petite catégorie Sénégal nag maanaam gagné ko tactiquement première période. dafa bàyyi malien yi di ñëw di attaquer di def lépp ba ñu sonn Sénégal nag euh, ci fin ba dugal ñaari but maanaam deuxième mi taxawaay bi yokk dem jël leen jouer ak ñoom parce que foofu ñoom mënatuñu dem loolu mooy expliquer kon coaching foofu la euh, kii euh, gagné wa match bi waaw ñu nag Gana booy xoolaat matt boobu Sénégal au lieu que mu xaar dafa teel a attaqué dafa ne ay ñii bu ma leen bàyyee parce que dañoo mën a football bu ma leen bàyyee dañ may sonal mu mu ñëw attaqué leen ñëw tee leen na dugal rek jeex na booy xool premier mi-temps mu rek mu pare ak ñoom loolu tamit euh, stratégie tactique la jël leen jël bu njëkk gagné leen. donc ñu nag Burkina Faso cinq 1 yi. waaw foofu xam nga match boobu Burkina dafa toog euh, euh, match boobu Burkina toog na ba pare. kon match boobu euh, amul euh, équipe bu toog la woon ak équipe boo xam dafa bëggoon jël pay xam nga bokkul quoi léegi ban taxawaay la Burkina waxoon euh, naxoon am bu fekkoon ne mu ngi doon viser qualification loolu moo jaxe match boobu jaxul ñu ci xool mais Sénégal ñëw na wane foofu boppam moom mu gagné match bi. ok match la boo xamante ne ni Burkina dafa toogoon jarul ñu ci attardé wu mais Afrique du Sud bi nga xam ne door nañ ko un 0 ban jàngat ngay def ci loolu. waaw match boobu nag booy xulaat nag muy match bi gën a métti ci Sénégal ci match boobu na nga xoolaat match bi match boobu la Sénégal mm, sonna nag am xam ne am na adversaire sonnal na ko booy xool sax bitu Sénégal sax contre camp la kon nag match yi athlétique la woon mais Sénégal répondre na athlétiquement physiquement loolu moom mooy clé wu match bi qualification bu Sénégal kon loolu wane na que Sénégal dafa taxawoon ci compétition bi. suñu def jàngat bi ñu ñëw ci final bi Sénégal Mali donc nee nga match Sénégal ak Afrique du Sud dañu sonoon trop match athlétiquement dañu dañu dañu dañu dañu fournir lu bëri est-ce que loolu ñu énergie boobu ñu dégagé moo leen jàpp ci final bi contre Mali. non non c'est que contre Mali Sénégal dafa bëggoon def rek comme comme ni mu defoon ca àll ba maanaam premier mi-temps bàyyi ka Mali yi ñëw. mais malien yi nag dafa am lu ñu yokk nag ci match bi bale passé dañu ñëwoon attaqué mais bii dafa am lu ñu ci yokk mooy pressing haut bi pressing bi haut bi loolu loolu moom mooy loolu loolu la ci maliens yi yokk parce que dañ ne ñii duñ leen bàyyi ñu ñëw en aucun cas buñ leen bàyyee ñëw ñoom dañuy sol na ñoom ñu ne risque la dañu kii ñoom ñu dugal ci benn bit booy xoolaat deuxième mi-temps maliens yi dañoo reculer loolu tax nag Sénégal nag ñëw nag. nekkoon euh, Sénégal foofu la waroon euh, gagné match bi parce que foofu Maliens yi dellu nañu ginnaaw mënatuñu parce que li ñu fournir li ñu joxe mënatuñu ñu dellu ginnaaw fan nag malheureusement nag ñun tamit euh, ma réaliste ñu ci deuxième mi bi vraiment après ñu dem série booy xool Maliens yi dañoo préparer série bi bul fàtte ne ñoom dañu éliminer demi-finale Nigéria. dañoo préparé série bi ci biir match bi da ngay gis dañ doon dañoo série bi xam ne ñoom bu ñu demee série dégg nga waaw que Sénégal foofu nag la mental bi desoon nag ci su jeu Sénégal yi gars yi nag craqué. saa nga gis ne aussi tamit déglu bi dafa bari Sénégal bi ñuy joué ak euh, Mali final bi premier mi-temps bi gars yi dañu bàyyi Mali dox seen kaw bu bari parce ce que gisoon ni Sénégal foroon ñëw tak réglé bi bi ñëw replier waat. erreur coaching la wala nu mu demee yow sa xalaat ci loolu. non non xam nga euh, du erreur coaching euh, coach bi booy xool deuxième mi-temps dafa jouer ak deux attaquants dem am na bit non du erreur coaching man defe naa ne coach bi man aw man boo man aw ma dara lu ma koy kii. parce que seetaan naa match yëpp ni mu ko joué man aw ma dara bu ma amoon lu ma koy reproché naa ko di mais gisuma dara joueurs yi tamit dem nañu à fond c'est que final moo doy waar final. bokkul ak jeunes yi waa match euh, poule wala match de final dafa doy waax dafa am leneen lu ci am dégg xanaa ci euh, booy xool image yi coach bi da leen daan def nii nii parce que mental bi mental bi mental bi leen di revenir waaw parce que boo xoolee tamit ñun ci équipe nationale ci u yi amoon nañ ci ay boo yoo xam ne football nañ ci U17 compétit nañ def def nañ ay compétition yu bëri donc pour man côté mental bi booy min nañu compétition quoi waaw am na ñu bëri nag dañu ne euh, coaching bi moom moo xaw a des ci premier mi bi wala Sénégal et tout ça yaa ngi koy gis commentaire yi ku ci nekk mais yow nee nga erreur du erreur de coaching yow apprécier nga mais tey euh, Sénégal dañoo am benn habitude mën nga football ba final ñu tàccu la mais soo jëlul final bi rek ñu ne ah defuñ fi dara yow lan ngay wax ci compétition bi en tant que yow ni nga gisee compétition bi yëpp de A à mais Sénégal non non sincèrement man bu dee Sénégal day bàkkoo ak ay qualification ay final kon nag ma xam ne ñun tardé nañu ñun compétition ñun xam nga lan la ñu wax a wax dem gagné ñun dañu war a gagné Coupe d'Afrique bii Gambie gagné na ko Mali ñëw ne ko gagné waaye léegi ñun duñu gagné dara ñun daal dem rek ñoo rek ñun daal ñun daal ñu ñooy ñu monsieur qualification après qualification zéro Sénégal dafa wax a gagné mais dëgg la. ils ne sont pas contents. ñu gis ne ok ñu gis ne aussi personne ne mu nekk Cheikh Ahmed Tidiane Gomis fii di journaliste nekk Walfadjri euh, Cheikh dañu seetlu tamit euh, Mali mu ngi doon football ci final bi gis nga li mu indi ci ay ay maliens ci ay supporters donc Sénégal ñu ngi tombé ci jongante élection gisoo kenn amul kenn ku leen di supporter ak yu demee noonu ban jàngat ngay def loolu. dama lay yëgal benn affaire boo xam ne petite catégorie fii Sénégal fu laaluñu ko loolu kese la. muy journaliste yi ñun muy euh, euh, public bi euh, population bi fu laalu ñu équipe nationale xale yi ñoom A bi rek bu doon A bi kon xam nga journaliste yëpp dem nañu bu doon A bi ñëpp dem nañu autorités yi dem nañu ak nangam dem nañu bu doon A kon tey ministre des demoon na lu tax dina moom bi équipe Sénégal gagné woon kii Matar Ba lu tax demul lan moo tax demul dafa waxoon dem ca final ba voilà erreur boobu mu def mu bàyyi campagne bi fii. parce que c'est le Sénégal waaw li mu def tegu ko fenn. li mu def teg ko fenn ñu ngi lay remercier bu baax a baax mu nekk Cheikh ma Tidiane Gomis gis ngeen jàngat bi nga xamante ne def na ko ci wàllu euh, Coupe d'Afrique des Nations U20 foofu amoon ca Niger Cheikh maa ngi lay sant di la gërëm di la remercier ci sa disponibilité merci beaucoup. maa ngi kontaan ci yow di euh, am mbégte di ñaanal tamit euh, lii nga sumb nii ngeen sumb ni yàlla na jëm kanam.